jëf mbokki internetu MPROD TV tey ñu ngi fi ci di fekk si Serigne Abdoulaye fay mais gàmmu gi passé dafa am lu mu ci jëf mu yëkkati ay nag yu bëri joxe ko waaye yëkkati ay berne di ko séddale ci bisu gàmm gi tamit jënd diwlin ju bëri ah, di ko jàppale jaam yàlla yi ci gàmm gi xam naa élément yooyu dañ leen koo tegal gàmm gi jàll na ñu ne combat Modou ak ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé le 5 bii am na sëriñ su naan buñ ci bëree am na ci mbër moo xamante ni baaxul ci moom dinaa ko laaj kookee ndax la ma wax am na ba tey ñu ne remaniement gouvernement bi am na ci ministre yoo xamante ni dañ leen a wor am na ci ñoo xamante ni seen ndombal tànk li tax ñu teggi ko ñàkk gàllaaj la mais kuy nekk président 2024 danañ ci laaj sëriñ bi mais laata loolu nañ ko bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi le marabout milliardaire ñu ngi lay jaare asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalo ak di nuyu kilifa diine kilifa aad yi di nuyu Serigne Mame Sy euh, Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne moo fi teewal murid yi yàlla na ko yàlla guddal ko fanam te wéral ko di nuyu sunu Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi teewal murid yàlla yàlla na ko yàlla gudda fanam te wéral ko di nuyu kilifa diine kilifa aada laay ñaseen xaadir ba suñu mukk chrétien di leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq. Euh, sëriñ bi tey ma bëggoon ñu waxtaanee lenn loo xamante ni mbir la mais balaa boobu nañ seetaan jëf ji nga jëf ci gàmmu gi ñu soog a xóot ci dëgg-dëgg waxtaan wi ñu seetaan éléments yooyu te ñëw ñëwal fee eh dégg nga demal ci gars yi demal ci gars yi demal fee demal fee di gars yi waaw da jël ngeen joxe. c'est bon c'est bon ah ok joxe joxe bu leen jëlee daf leen daan. daa def leen ndànk arrêté arrière leen arrière leen gars yi da ngeen arrière bu ngeen bëggee ñu doon arrière leen boo leen arrière du ma leen doon eh boo leen arrière du ma leen doon arrière leen arrière leen ma ñëw eh arrière leen ma ñëw arrière leen waa léegi def nañ ko naa

booy booy s'il te plaît bàyyi sa ruubee. Gracias, gracias. Tamam. Joxal ki joxal ki Grand grand grand

jëf ji tamit yàgg nga ko def mais ren moom euh, da ngay yëkkati ay millions yu bëree bëree bëree bëree bëri euh, rawatina sa kër gi nga tabax ci Tivaouane muy kër goo xamante ni ay milliards nga ci def mais jëf ji tamit jëf yi ñu ñëwaat ci jëf ji nga xamante ni jëf nga ko. waaw xam nga tey yàlla def na man taal bi seex la taal bi eh, seex la taal bi suñu Babacar Si la hmm. te boo gisee ma yàlla def ma tabax kër gi. wax dëgg yàlla mën naa wax yàgg naa fa gàmmu mais bii sama kër laa gàmmoo tey parce que maa ko jënd si côté armère yi maa ko jënd parce que armère may doonde mais si gerte jumaa ji dama xaw a jege jumaa ji sax ma jënd ko defar ko macha allah wax dëgg yàlla jënd ay nag jënd ay diwlin jënd ay yëpp di ko di ko séddale ñi nga xam ne encore ñoo nekk sama wet di joxe ay nag uhuh. parce que li ma si def presque mot na au milliard jën yooyu yëpp jën diwlin ba si Aziz Aziz Zador laa jënd jàppale ko parce que waaw Aziz Ndiaye pour si si gàmm gi mhm. parce que moom damaa waxta képp kuy taal bi seex mhm. war nga jëndal boo jënd diwlin jëndal Zador parce que Aziz moo dëgg yàlla ni muy def Tiwaawoon mhm. wax dëgg man ak moom ñu koy def Tiwaawoon dama bëgg mu gën a yokk moo waral moo dëgg yàlla comme ni ma ko waxee ma jënd fa kër jënd nag jënd lépp di ko séddale foofu wax dëgg yàlla boole si encore di séddale si mbedd yi. ñi nga xam ne ay gan yoo xam ne dañu dugg fi sori. koo jox barket après nga jox ko mbu benn paket benn mbuus boo xam ne day am pomme banana. Mhm. Euh, pomme banana ak boisson ak ndox. nga xam ne bu xewloo ba pare mu mën a mu desserté. Mhm. loolu lépp wax dëgg yàlla def naa def naa loolu. Mhm. te xam nga rek ñun dañoo bëgg comme ni Touba mel. chaque année mu ñu gën a yokk dama bëgg moom it wax dëgg yàlla Tiwaawan mel noonu. dama bëgg chaque année euh, tiijaan yi di gën a def. di gën a wane seen bopp di gën a wane seen gëm-gëm di gën a wane seen sëriñ lu ma leen jaral. parce que comme ni ma la ko waxee moo waral ma def secret bi nga xam ne mooy secret minti milliardaire murit beeg xaadir beeg laayeen bi ñaseen bi bàyyi mu kenn ma defal la secret boo xam ne boo ma ko defaree si kàttuñu yàlla sàkk bu gàmmu jotee wala màggal jot da nga mun a yu bari nga mun a tabax sa kër ci ci si Touba nga berne def si ay milliards def si lépp berne jàppale parce que day tax loolu day liggéeyee suñu Touba la liggéeyal islam la dooleel islam la jàppale loolu loolu moo tax ma jël secret boobu di ko defal ay ñoo xam ne ay taalibe seex lan ñii ay taalibe euh, murit yi ñii ay murit lan ñii xaadir ñi ñaseel la pour chaque gàmm bu jotee wala chaque année nga mun a am loo berne sa ay gan nga xam ne mën nga si def 3 milliards wala 4 milliards sax du la wàññi dara nga xam da ngay tabax sa kër gan yi ñëw da leen di nga leen euh, berne loolu daal moo tax man ma ma def noonu te ma it si man man sama si sama bopp laa ko ñëkkee jënd naa kër te waawoon tabax naa ko macha allah wax dëggal dafa naar si lépp jën naa yooyu di ko séddale di parce que lépp loo si def si gàmm gi rek mhm. suñu Babacar si wax dëgg yàlla ak ñi nga xam ni ñooy tijaan yi yàlla day def mu gën a yokk parce que yoon yoonu islaam lu koy dooleel moo gën lu koy lu koy dellu gannaaw. sëñ bi bala maa ñëw ci remaniement bi nga xamante ni am na te gouvernement Macky Sall bees bi ñoo xamante ni eh, jot nañ ko laal changé ko eh, nit ki bu bëggee xaalis fan nga mën a jaar moom ba def ko millionnaire wala milliardaire. waaw xam nga alhamdulilah parce que fan yi yëpp yaa ngi gis maa ngi doon tudd lu mel ni Mactar Cissé mm-hmm. xam naa Macky Sall est-ce que déggul sama wax. Mm-hmm. parce que bi am na benn jour wax naa Mactar lu mel ni Mactar Cissé sama émission ma ne lu mel ni Mactar Cissé de bële leen waroon jëlaat seen wet parce que jig na ko. te sa Cissé walla azim yàlla xam na ni sama nit la. te se ma sol la wax dëgg yàlla def na ah, mus na yónnee ah, adjoint si man ma dafa ko ay sarax. dafa ko ay ñaan. waaw muy Mamadou Bamba aan wax dëgg yàlla te yàlla def na si wax dëgg yàlla li ma ko ñaan woon mun naa wax ba léegi ñaan yi ñu ngi nangu. te encore ni bokk ñu bokk tiijaan yi nekk bokk tiijaan nekk tiijaan bokk lii te jour boobu jour boobu Makhtar euh, Cissé jour boobu yaakaar naa ni euh, première sama sama mu jox ma xaalis yaakaar naa cinq cent mille la ma jox première waaw cinq cent mille la ma ñekkoon jox wax dëgg yàlla ma defal koy affaire te wax dëgg yàlla ñaan yooyu xam nga ñaan moom bu xasee ba def day jàpp boo dégg day jàpp ñaan man ñaan yi may defal damay def ñaan yoo xam ne chaque année da ngay gën a yokk rek ñëpp bu ñuy jëmee ba yaakaar ne dootoo bokk rek da ngay bokk te loolu alhamdulilah maa ngi ko sant yàlla bu baax a baax kon xam naa Macky Sall dafa dëgg keroog sama wax ma koy wax na ni mu ànd woon te ni bàyyi ko ñenn saa yi da ngay da ay nit fekk dañ laa jig danga nga leen wan a innawaat sa wet kon loolu sant yàlla bu baax alhamdulilah kon comme nu mu ko waxee. ñaana nit mu nekk multimilliardaire bokkul nga ñaar nit mu nekk mu falu wala mu nekk mu nekk euh, li ngu sax wala mu nekk président yëpp bu nekk ak façon am bi nga ñaar nit mu nekk multimilliardaire bokkul bi nga ñaar nit mu nekk multimilliardaire rawaanam ngay jël boole ko ay rawaan yoo xam ne ay borom alal lan ay borom teraanga nga defal leen ko boo ko defee ci kattan fu mu a jàllee nekk multimilliardaire parce ñaan xam nga tey dañuy wax ñaan yombul mais fekk parce que fekkee euh, Modou may ma musuwaar baal ma rek maa ngi sa clip mu ngi tàkk mit maa ngi ñàkk de dafa xaw a tàng fan yi nag yaa ngi dégg fan yi boo xoolee comme noonu kay dañuy wax ñaanu non man sama bopp laa ko ñëkkee sama bopp laa ko ñëkkee ba pare defal nit ki mu nekk borom alal borom teraak te man gis ni ma gisa nii man duma ma fen bokk ma si ñi nga xam ne yóbbu faar dana waa ñaanal naa diw dafa la déedéet mm-hmm. man li may wax bu amul Mactar Cissé mën na maa woo mm-hmm. adjoint la yu noonu mm-hmm. adjoint te boobu mu ngi nekk mu nekk dig directeur de cabinet bu mag Sall la woon jamono toll boobu boobu maa ngi maa maa ngi doog boobu boobu laa gën a nekk xale sax ba kooku wax ko adjoint bi ah kii ma lay boole de xale bu ndaw la adjoint mooy Mamadou Baba ànd boobu mu nekkoon adjoint Mactar Cissé si si si si directeur bu bu bu Macky Sall fi umar yu mu nekkoon mu ni ma a ah, wax dëgg yàlla ki ma lay boole xale la mu ne mais eh, wax dëgg yàlla daf da laa gisal nee boo defee sarax nangam dina la fal mais da koo def rek ñu fal ko ñu jóge ko fa ñu yóbbu ko directeur bu yóbbu na ko directeur bu bu lii bu mu sax bu directeur bu euh, directeur seen Senelec ñu jóge foofu mu ne yóbbul ko euh, ministre de pétrole de gaz mm-hmm. ñaan dama laa mbóor gu bugg wax rek ñaan amul lu ma mënul mm-hmm. parce que xëy na renouvellement euh, bi am moo tax ma am ma profité si si waxaale la loolu mm-hmm. ma wax na ñaan yàlla def ndam du man du ministre rek naa ñaanal ba ci procureur général yi dama lay ñaanal juge yi billah dama lay ñaanal man fu tey bu ma la woowoon tey bu fekkoon dañuy jàpp ni man lu may wax de amul buñ ma wooyee dama lay wax diw la diw diw man amul lu may fen kon xam nga kon man man man man man man maa man maa sax man maa soxawul sax di nit di wax ci nit yi fekk li may wax du dëgg est-ce loolu wax parce que yàlla fekkee ay milliards la wala alal moo tax ngay woo nit ki di wax man yor naa milliard yor naa alal man mi tabax jumaa école hôpital di jël ay millions. di def si sori yow yow yow dëgg daaj yow yow yàlla def na sàkk boo may jël émission. si lu baax rek nga gis may def. wallaahi yi. jël ay deux cent mhm. jël trois di ko dimbali néew néew doole yi yow gis nga ni encore fi nga xam ne encore mooy fi ma doon séddale abalo abalo yi ak fi ma jël 10 millions di ko yóbbu si opto yi kon man li may wax day fekk loo xam ne lu nekk si man la Kenya yi encore bu ma leen ñaanee dama lay wax li am man bu wut ma ay Kenya xëcc ma ay Kenya nit ki boo ñëwee baax na boo ñëwul baax na mm-hmm. mais en bu ma lay ñaan dama lay ñaan li nga xam ne moo moo am xëy na amaan na xëy na nit mun na ma mun na ma woo duma jotu mu woo leen ma lu Ablaye yu tax buñ ko wooyee yéen si sa dañ koy tontu dañ ko wax ah Ablaye de ñu ngi koy wooyee doo ko jot nit ñoo lañ koy wooyee duñ ko jot parce que ñëpp ñoo ko soxlaa te gis nga àdduna boo si nekkee wax naa la ko waxaat la ko képp kuy yàkkamti jaru nga may woo kuy ñaan ay junni junni doomu aadama nag bu yàlla defee mun naa wax su fekkee cent pour cent quatre vingt pour cent yi mu nangu beneen cinq pour cent yi mun naa bañ a nangu mais da ngay nekk ma ba keroog muy nangu ñun duñu yàlla duñu yenent dañuy ñaan yàlla rek suñu borom mooy maye. te mooy dogal te barki Seydina Muhammad li fi nekk si ay kilifa tey fii te mu war xamante ni sekk teraanga dama la déet ba si may gee MG sax walla ibna këram si ñax si ñax dafa ma teraanga ba nit ko baax nit ko nii Macky Faye mii sax ba wax dëgg yàlla bi nga xam ne encore mooy mooy mooy kii may sax ñaam mi nga xam ne day liggéey moom wax dëgg yàlla kooku amul dëgguma dama la bëgg xamal rek fii nga xam ne boroom alal borom dara dara ji nga fi ngi amul koo xam ne xaw ma la wala xamoo ma xam ne man ni yàlla def na xëy na sama at mun naa bañ a bari mais nag mais kilifa laa te état bi dañ dañ may déglu borom daraja yi dañ may déglu moodu moodu yi dañ may déglu faat faatu yi dañ may déglu tijaan yi dañ may déglu murid yi dañ may déglu ba si murid yi am naa fa ay nit yoo xam ne maa soo ay kilifa yu mag noonu lu ma ko amee ti tiwaawoon noonu laa ko amee tey kon bu ma doon dem si Sëriñ Mountakha Mbacké du ma am saa interdit parce que war dëgg yàlla si damaa bokk si ñoom kon mais bu la yàlla cëralee nga am xam-xam boo xam ne bu bu sell la mm-hmm. boo xam ne bu bu bu bu bu barkeer la parce que xam-xam bu sellee barkeer rek koo si ñaanal rek mën na ci gis boppam mais wax dëgg yàlla mais du tax ni nit ki nga xam ne danga koy ñaanal mooy yàkkamti man bëgguma ko yàkkamti te yàlla dimbal na ma wax dëgg yàlla am naa si xam-xam yu macha allah yoo xam ne wax dëgg yàlla nit sax du toog di tàgg boppam parce que dañoo wax bargal bu feesee du yëngu. mais yenn saa yi da àdduna dafa laaj nga toog di leeral mm-hmm. loo xam ne li ni leeragu woon wala ñi nga xam ne dañuy wax Ablaye fay fan la jëlee këram yi mm-hmm. fan la jëre alalam bi fan la jëlee lii est ce que ñaan kese mën na ko may ñaana mun na may lu nekk mm-hmm. parce que nit ki boo ko ñaanee ba mu dem bu mu gis suuf nga ñaan ñoo xam ne dañoo dem rek seen alal ñëw ñu nekk minti milliardaire ñu am alal ñu am teranga kooku amul loo mun ta lu loom parce que am na ñoo xam ne bu ñu kontaanee ñii dañ lay jox un milliard deux milliards trois milliards ñi quatre milliards parce ñaan jar na lu ëpp loolu nga am xam-xam bu doy bu leer yàlla def mu barkeel xam nga xam-xam bu barkeel kenn xamul lu mu doon xam-xam bu barkeel lu nekk xaj na si président bi xaj na si ministre bi xaj na si procureur bi xaj na si juge bi xaj na si. policiers yeeg gendarmerie yëpp xaj na si. xam-xamu barke laa la wax de. bon parce que nañu xam yàlla mooy maye bu nii euh, diw nax na ma wala diw mënu dara rek ñëpp a yem déedéet. am na li am parce que gis nga est-ce moo wax la benn affaire barke Seydina ma nekk si nekk si gouvernement bi ñoo dàqal ñaan lu nekk si juge yi. parce que juge yi ñuy àttee dañuy daje ñoo xam ne ay borom xam-xam la mën nga leen àttee ni def la loo xam ne dootoo ñëwaat te ñoom ñooy kon ñoom ñooy dëkk ñoom ñooy jigéen jug seen bopp ba pare doog a toog di àttee parce que ku toog di àttee wala nga nekk wala nga nekk wala nga nekk ni takk la ndomba tànk te amoo xam-xam lii amoo gan ngandaay sanguwoo sa bopp am na ñoo xam ne boo leen àttee jour boobu ngay géej àttee kon seen bopp ba pare ngi doog a di atte kon ñaan sa bopp nga koy njëkkee ba pare mm-hmm. fekkee da ngay defal nit ki mu nekk mu nekk milliardaire kii am alal mais da koy jëkk sa bopp ba pare mm-hmm. parce que gëm naa ni tey bu ma yàlla wa may woon alal du ma jël alal bu toll noonu di ko def ci néew doole yi te loolu si xamul tey amoon naa rendez encore ñi nga xam ni famille boo xam ne comme famille bi nga xam ne mooy sim mooy ñi nga xam ne duñu gis ñi nga xam ne dama leen jàppale woon am na benn rendez boo xam ne dama fa waroon dem mais tey damaa tardé mais dama war a dem ñi nga xam ne famille boo xam ne ñëpp cancer. cancer bi mu rey ñu bëri de. quatre personnes dese dese si. danoo génn àdduna si cancer. des na fa parce que kooku benn femme la ba xam ne moom dafa cancer woon. magam cancer gën génn àdduna. mais ñoom kër gën gi ñu nekkoon sax dañ fi génne ñu ngi si wet géej gi. Oh, ñu si wet géej de. wallaahi ñu ngi si wet géej gi génn la am na fu ñu dëkk ñëpp cancer ñi dagg ñi ñii seen ween yi la dagg ñii seen bët yi la ñuy yàq cancer bi ñii seen yaram la la yàq ñi ñàkk na seen bakkan am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si métti bu metti bu tar. tamit at mi nit ñi aaro kaaraange nga lan moo ci gën a leer ku bëgg aaru waaw ku bëgg aaru am na fi comme ni ma ko waxee am na feebar yoo xam ne mel ni cancer yaay yooyu bu la dalee euh, ñaan baax na si ay yooyu baax na mais li koy faj mu si ëpp njëriñ parce que dama fa war a dem jàppale leen dimbale leen ñu ngi may woow noonu benn famille la moo xam ne instant ni fu nekk la dëkk fu nekk lay jugee bu ñëwee Dakar di faju fii te te opération bu nekk ku nekk quatre cent mille cinquante mille boo ko defee doo faju te am na ñoo am am na doole boobu nga bëgg leen dem jël benn somme jàppale leen dama la bëgg dem jël leen à charge dimbali leen parce man wax naa la man xaaruma si état si li may def. billaahi walla wa taalaahi am na benn ministre bu mu mosoon woo ma wax ma yow li ngay def sa ñi nekk si gouvernement bi sa mun na ko. moo ko loo moo laa ko tegal mais la laa ko si tegal. amaan na am na ñu ko mën mais joxe si xol la. sa joxe si xol la boo mën a joxe si xol ngay doon nga nekku tabe nga nekk koo xam ne yes parce que man man de war dëgg fas ma yéene di denc ay milliards ba pare di bàyyi di néew doole yi di sonn te incha allah bi ñi nga xam ne noonu nee nag waa Kaaseer gis nga parce que wax dëgg yàlla comme lu ma ko xee gis naa ni sànq sax gis nga li yàlla def yónnee na ma yónnee na ma message ngi lay woo mais mënu ma la jot waaye naa da nga ma doon woo ne dama dégg la rek foofu. xale bi nga dama ko jël wal foo laa war a dem. wallaay yaa ngi gis bët dama war a dem foofu. mu dama war a ñëw foofu dama war a dem foofu jàppale leen te ñoo ñëpp dina kaaseer. xale boobu dafa kaase ba bët bi yàqu. ñii seen ween di di di di dagg. gis na cancer bi xew xaw ma dina waxoon yàlla na yàlla xaral euh, ki màgg waale bi mu mi yàlla na ko yàlla xalal aljanna te wax dëgg yàlla sarañ sarax yàgg si seen loxo mais dëgg naa si wax yi sax ni wax cancer moo ko rey mais cancer boobu wa wax moom rek moom mun naa wax moom feeñi mais cancer bi li muy rey si ay doom aadama doonoo bëri moo tax état bi war naa jël a doole jàppale nii cancer man de maa ngi ko benn côté te duma xaar kenn maa ngi dimbali woo di leen dimbali bu baax te incha allah rabi damay bëgg bu may dem te ma ànd papa papa ñang mooy social. man ak faadal ñëw ñëwoon nañ si man. mais dama bëgg après bu may dem foofu ni ànd ma jël si li mu la jël jox leen ko dimbali leen ko. wax dëggal ñëw wax dëggal mais ñoom laaj nañ social te papa Seex wax dëgg yàlla mooy papa Seex ñang nit ku baax ak Fadel ñu ngi def si réew mi loo xam ne liggéey bu am solo ñu ngi koy def si réew mi di jàppale. sut Fadel lu rafet lay def. wallaahi di jàppale néew doole yi. social looy la moo tax ñu jàppale ñëw doole te bi daal dañ maa woo wax ma Ablaye damaa gis ni social yi ngay def dama bëgg yow nga bu ñu amee kaa ni woo la nga jàppale leen. ñu nekk nit ku baax. kon dafa jot ñu jàppale ñi nga xam ne dañoo sonn. jàppale ñi nga xam ne dañoo kaaseer. parce que man ak ñoom ñoo ànd ba si ñi nga xam ne kër ñi nga xam ne dañoo gumba ma jëndal leen euh, sim euh, lii sax euh, peinture yeek jëndal leen lépp jël nga jox leen parce que ñoom gis nañ may def social ni woow ma. donc man it incha allah rabbi li ma gën a yitteel jamono toll nii ñi nga xam ne dañoo kaaseer. kaaseer ba pare amoo loo faju kaaseer ba pare ngelaw sedd bi ni gën la fi nga nekk ni googu yaakaar day wàlle te du wàlle. ñoom ñu ngi si wet géej gi ni am na fi mu dëkk ñu ngi si wet géej ngelaw gi yëpp di di leen taw bi yëpp dina fi fekk. te xam nga guum bu tooyee. ku góom kaase du gaaw a wow moo tax il faut état bi taxawale leen jàppale leen deuxième comme la waaye ñi nga xam ne damay ñaani nekk minti milliardaire di mën a amee alal social rek man de képp koo xam ne pare nga pour bu mu la ñaan nga nekk minti milliardaire nga jàppale ñi néew doole nga jàppale ñi nga xam ne yoruñu doole man de pare naa pour jàppale bu def la minti milliardaire si kàttanu yàlla wax dëgg yàlla parce que dañoo toll si jamono boo xam ne réew mi na ba nit ñi moo tax dana wax keroog Amadou baax dafa bëgg nekk président mais bu bëggee bu nekk président am na foo xam ne moom foo nga war a jaar pour nekk président waroo toog rek climat di la ëpp da war a génn xool li métti sénégalais yi nga leen jàppale di leen dimbali. mais am na ñoo ne bu ñu naxee Sénégal ba falu rek pare na si du noonu àdduna du noonu da ngay génn xool li métti Sénégalais yi dem ñuy kaaseer dem ñuy hôpitaux yi am ñu fajoo ñii nga xam ne da lay bind ordonnance man euh, yenn saa yi da ngay dem si euh, euh, man damay dem si pharmacie yi di jënd ay garab mais da ngay kay wala nga dem si hôpitaux yi nga bindal la loo xam ne loo mënoo leer na li kooku dafay wax paa bi da ko bindal loo loo xam ne dafa seet man lii moom wax dëgg yàlla ma dangeen ma bàyyi ma dem deewi rek toog sama kër deewi xam nga lii du ko jënd parce que dafa seer te amul xaalis man maa ko mujj jël jël jënd ko ko mu ñaanal ma bu baax parce que dañ ko ko bindal man wax dëgg yàlla mun ngeen ma fekk maa ngi taxaw di ko xool mun nga mun ngeen ma bàyyi rek ma dem sama kër xaar dee fekk damay wér wér bi ma wérul dee ñëw foog ma mais xam nga lii moom mun ma koo jënd xam nga loolu ma bari sa réew mi bëgg faju doo faju bëggu xam nga koo xam ne lekk dalaa tex sax feebar yàlla tegal la benn feebar sax day gën a métti moo tax il faut gouvernement bi nga xam ne ñoom ñoo yor suñu kaaraange yor suñu alal yor suñu budget yor suñu lépp il faut ñuy coppati si alal boobu di jàppale ñi nga xam ne dañuy bëgg faju dañoo bëgg faju parce que loolu dong moo leen moo la mën a guddal sa fan moo la mën a wéral moo la mën a may teraanga lool moo la mën a yëpp looy wut mu yomb la day tay tax sax cat du la mën dara day tax liggéey du mën si yow dara day tax kenn du mën si yow dara parce que joxe dafa bokk si luy aar doomu aadama joxe dafa mel ni luy saraxe rek kon nit ki taamal di joxe wala saraxe dafa baax si doomu aadama. Mhm. Euh, sëñ bi euh, ndax galaaju tukki. Euh, ñaan ci yomb na maam ki bëgg tukki bitim réew parce que jamono jii nit ñi bëgg génn jaral na leen ñii sax di jaar ci gaal gi ñii di jël yoon nekk na garab bi ba tey ji tukki woon tamit problème papier am nañ ko. waaw loolu am na parce que am na ñoo xam ne dama lay mm-hmm. am na koo xam ne dafa feebaroon mm-hmm. mu nga feebaree dama ko dama ko ñaaram mu am kayit du pare mm-hmm. feebar ma ma ma faj ko mu wér ma defaale ko mu am alal.

ñi na am dina am ba pare bëgg yokk ñi nga xam ne am nu dara bëgg am parce que wax dëgg yàlla comme li ma ko yàlla mooy may nañ xam ne yàlla mooy may de nañ xam ku nekk nag yàlla mën na la sompal parce que comme li ma ko waxee xam nga taa yi jël naa sama yaay ak dix personnes presque cinquante millions yóbbu leen après affaire yooyu yëpp xam nga loolu lépp da jaaxal nit a jógee. fan a nga xam ne damay ñaan ñi gis ñi ma koy fay ma koy jëlloo di ko jël di ko delloo si doomu aadama ndax sëñ bi euh, ñaanal nit ki mu am alal euh, côté sangar wala côté côté sarax si yablaay lan la ci gën a utiliser. waaw dama si def ay sangat. dama si def sarax. Hmm. parce que àdduna boo si nekkee euh, li sarax mën a def ci doomu aadama. kenn xamul mu doon. sarax mën na la fànkal dee. Hmm. sarax mën na la fànkal ay catak liggéey ak yooyu yëpp sarax mën na la yokkal. Hmm. sa teraanga yokk sa wërsëg lépp sa lépp. te sarax sax dafa baax bu gën a àdduna sax sarax mën na laa mën na laa fekk si foofu kon sarax daal amul lu mu munul sarax lépp lay def ñin ñin sax ñu ñooy dàq man mun naa wax sax bokk na ñi nga xam ne ñoo dàkk saraxe parce que ay gëlëm ak lu nekk laay génne di ko saraxe parce que tey nu wax la benn affaire gis nga dañuy wax de tuur deret baaxul ndax boo tuuree deret rab bi nangam na dañ lay ndax fekkoon na ku judd du la tuural deret ku gën àdduna du la tuural deret kuy gàmmu du la tuur deret doo tuur deret kuy kuy kuy kuy kuy màggal doo tuur deret mala yi yàlla da ko indi pour suñu soxla pour suñu jaamu yàlla pour suñu lépp loo xam ne yaa ngi koy wut te mu dëgër mu nga bu la neexee nga nga sarax si pour yàlla def loolu aaju taxul taxul nga bañ a gëm yàlla parce que fekkoon loola xoolal chaque année màggal wala maggal màggal wala tiwaawoon wala mu doon wala gàmm day gën a yokk. Mm-hmm. Seex Béthio bu lu tax ba ba ay ay doomam doomam ay sëtë sëtam day gën a chaque année day gën a yokk parce que tuur deret yooyu muy tuur dañu yaakaar dañoo wala li déedéet mm-hmm. nga ko da nga koy def pour jaamu yàlla pour yàlla màggal sa bis bi nga xam moom ngay màggal yàlla yokk la si xéewal guddal sa fan defal si lépp loo si bëgg. Mm-hmm. kon tuur deret est-ce que xam nga ni tamit wax la woon affaire gis nga am na borom alal ñoo xam ne ñu ngi fii su sat vendredi wala vendredi walla wala vendredi wala jeudi ñoo la dakk tuur deret te ñoo la gën mun a am alal mën a gën a mën a am teraanga tuur deret nekkul loo xam ne da nga koy tuur deret pour pour pour pour pour lu araam wala lu da nga ko tuur pour sa soxla mala yàlla da koy indi pour suñu aajo mais tuur deret dara nekku si parce que taxul nga nekk lu def lu am parce que dañuy wax. xam-xam bu ñuul ak bu bon xam nga nit ki mën nga def si xam-xam boo xam ne bu sell la boo xam ne mën comme lu mën nga si julli mën nga si jaam yàlla mën nga si te man xam boobu laa yor. sama xam mooy bi nga xam ne bu ma ko defee nga am alal alal boobu mën nga si julli mën nga si jaamu yàlla mën nga si eh, tabax juma mën nga si def social mën nga si def lu baax. parce que am na alal yoo xam ne nag da ngay def alam yoo xam ne mooy mooy affaire formation yi nga xam ne dañ laaj sa baaraan laaj sa deret nit laaj la lu araam laaj la liir yooyu du ko def yooyu araam dafa araam baaxul lu ma la may tey mën na la ko xañ ëllëg mais li ma lay defal nag lu leew lay doon loo xam ne mën nga si jaamu yàlla te dara dul si fekk am na ñoo xam ne dañu wax bu ma defee mu am alal ba xam du ma affaire di ma feeñu déedéet wala am na loo xam ne bu ma defee ma am alal est-ce que du nekk fii ni may laajal leneen lu araam wala léegi déedéet man du ma laaj loolu man lépp loo xam ne lu la lu am na sa diine moom laay def loo xam ne encore loi bi bañu ko parce que ñaan moom araamul luwaa bi bañu ko mooy ministre bi mooy juge bi rek muy amul kenn koo xam ne ñëpp ñaan ñaanlu kon ñaan pour ñëpp la kon ñaan mooy gànnaay jullit kon àdduna ba si nekkee ñaan moom wax dëgg mais bu comme lu ma koy xam nga maara yu bëri nag tey ñoo ñoo ñoo yàq ñoo yàq lii ba parce que dañuy wax maara yi dañuy ni man du dafa am ñoo xam ne wax dëgg yàlla gëm nu yàlla gëm nu yeneen ñoom ñooy lekk lu lewul mais wala yàq lu am waaye nees bi xarit naf nit moom wax diggal looy lekk-lekk nekk lu leew te encore man lépp lu may digal ak yow day nekk lu leer mais bu yàqamti woo nga ma jotoo ma bàyyi ma message xamal dama nakk rek jot. wala fekkee gi am na sa numéro bu la woowee nga ma fekk nga heure ba ma jotee nga wax ah ma la doon woo jotu la wax la avant ah, ma numéro ma woo mais bu mu mer wala bu wax affaire yi parce que dañuy jàpp ni dañu dem ba jàpp ni yaakaar ne journaliste yi ak sëriñ yi ay complice lan ak yooyu déedéet déedéet. parce que xam nga ni waa import. duñu dugg si ay caaxaan. duñu dugg si loo xam ne ëllëg dañuy wax man it noonu laa te yàlla dafa ma ni kilifa la du ma dugg si lu ay caaxaan du ma dugg si loo xam ne di lii te yéen leen na la bu ñu demee ba sëriñ nangam xamul da yéen dootuñ la ko jël loolu xam naa ko ku jël day fekk ku nekk ku liw ku yiw ku sell ku settu ku jub parce que comme ma man mi nga xam ne yàlla def na ma am na am naa alal am naa teraanga man doyu ma alal kenn man ku ñëw man maa lay may sax man maa lay dimbali dimbali la may la ñaata ñaata ñaata ay oto laa maye ñaata kër laa maye hmm? ñaata doomu aadama laa jël ay saaj yóbbu la bitim réew nii faju ñii di fay ay 8 millions ñii di fay ay 10 millions ñii di fay 15 millions kon wax dëgg yàlla mais mais xam nga tey euh, sëriñ yu bari tey ñoom bu ñu amee alal dañ koy noosee noosee rek lañ koy def te alal wax dëgg yàlla fajul de mais day faj gàcce mais boo amee alal bu mu mel noonu te jëriñoo si doomu aadama yi nga xam ne dañoo ñàkk kon sa alal jëriñu dara man alal balaa ma xam ne jëriñ la dara balaa ma la nawloo ngay fekk ngay def lu baax man képp kuy def lu baax ànd naa ak yow képp ku deful lu baax ma sama yoon nekku si yow non boo amee sa ay milliards sama yoon nekk si yow yow ak sa milliard ak si lépp si moom laa yamle parce que dafa si lu baax. ñu bàyyi la nga tàggatoo askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaye may tàggatoo mooy képp koo xam ne comme lu nga waxee war képp koo xam ne woo nga ma jotoo ma bàyyi ma message heure bu ma feexee damay wirdi damay nekk si ñaan yi damay nekk si lii. te boo xoolee nekkuma si chaque jour rek nekk si internet bi di génn chaque jour lu bëri parce que mënuma di génn internet bi lu bëri bàyyi liggéey jaamur yi mooy si li nga xam ne antika dara ñu la lu xaalis nga xam ne chaque jour génn déedéet man mel ma noonu man bu ma génn tey balaa maa génn te yàllaa xam te bu ma génne li am farata laay wax li am fulla laay wax lu lu askan bi laay wax lu jëriñ réew mi laay wax te heure bu ma leen boo ma wanee ma génn xool leen sama vidéo yëpp raar naa boo xam ne dañ koo génne te def ma si social raar naa loo xam ne génn ma si dimbal ma doomu aadama heure bu ma génne vidéo damaa gi togg ay ñaam joxe wala damaa dimbali ñi feebar wala damaa dimbali ñi ñàkk wala damaa jàppale doomu aadama kon eh, eh, internet boo ko bonalee rek mu bon te boo ko baaxalee rek mu baax kon internet pour wane lu baax la def na ko pour ngistal lu baax da koy wane pour ñi nga xam ni danoo yor seen alal bañ koo def def ko damaa bëgg ni lu ni ni ni seen ablaay ni nii loo nii ko di xool ko si li muy def pour ni koy def parce que man def ma ko def ma ko pour ngistal def ma ko pour gis leen ma def ma ko parce que li may def lu baax te gis ñu ko moo ëpp fuuf li may wone damay bëgg borom alal yi nga xam ne doo nekk si réew mi. nekk sa àdduna ba foo mën a nekk sa àdduna ba nga yor borom alal ngay def social di dimbali doomu aadama yi. parce que moo am njëriñ. àdduna boo si doo nekk di jàppale doomu aadama di jàppale ni ñi ñi néew doole yi di ñàkk déedéet. heure boo defee lu baax yàlla fay loolu baax. kon lamay ñaan wasalaam yàlla yàlla defal jàmm ñi ñëpp wasalaam. accu dégg ngeen Serigne Abdoulaye Faye la marabout milliardaire waxtaan wu am solo wi mu euh, waxtaan tey mu nekkoon waxtaan wu bëri euh, njariñ ñu doon ko euh, jotali mbokki sénégalais donc jotali mbokki internet bi yaakaar naa képp ku ko war rek ci numéro yooyu da nga ko jot mbokki doon topp di ñu siifu ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad